Wagy Traoré Wagy Traoré ñu ngi lay ñu ngi lay remercier muy ancien vice président du conseil départemental donc mu am ba ñu prévoir aussi dem boo xamante ne ne tamit si si lañ ko bëggoon teg parce que moom nii si boppam sinistré yi la bokk euh, donc moom mu ñëw jël fii wàllam fii euh, devant la gendarmerie fi nga xam ne fi la xaar Bougane Gueye mu ngi fii à côté ñu Euh, donc ñu euh, ñu jox la jox la don bi nii ak euh, enveloppe bu 500 000 francs mi nga xamante ne ne coalition sàmm sa kàddu moom moom moo la ko jox donc ñu ngi lay masawu ah di masawu ñëpp ñoo xamante ne ne ñu ngi ñu ngi foofu nekk ay sinistré te di wax ne lu fi dem xem nañ ko di woo sénégalais yëpp tamit ñu jàppale leen bu baax a baax a baax donc ñu ngi lay remercier ba nga ñëwee ba fii yombal ñu liggéey bi parce que yeneen yi dañ koy obligé di ko acheminer euh, par nous-mêmes donc ñu ngi lay remercier bu baax. jërëjëf euh, donc comme ni nga ko waxee rek euh, Wady Traoré la ancien vice-président du conseil départemental mais depuis un certain temps beaucoup d'années maintenant j'ai tous soigné vu le traitement que Bakel subit depuis les indépendances je dis ce qui me lie à président Bougane Gueye Dany c'est pas la politique de dit ça, tu dis des conneries. C'est pas la politique, c'est des ah, liens amicaux. Euh, L'année passée même, il est passé me voir, jusqu'à Diawara, me dire Donc ça dit tout. Je ne suis même pas militant de Gamesbon. Donc pour dire que Sylvain aujourd'hui avec ce don, là vraiment je pense que le contexte aujourd'hui, il y a la loi, on n'en disconvient pas, tout le monde, nul n'ignore la loi, mais il y a une manière de négocier on peut modérer toute situation s'il vient avec le pied d'or. Il m'a appelé hier pour dire que j'ai quelque chose pour vous, pour la commune de Diawara. J'ai dit que bienvenue, présent. On ne que ça, parce qu'on n'a pas été assisté. Aucune assistance en logistique, en rien. Moi qui vous parle, je suis délogé de chez moi. Les vidéos sont là claires, tout le monde est témoin. Ce n'est même pas vraiment, c'est une honte pour nous. le traitement que Bakel subit depuis les indépendances à nos jours, sincèrement parlé, les jeunes de Bakel, je vous dis, réveillez-vous. Réveillez-vous, il est temps avant qu'il ne soit trop tard. Le train a déjà pris départ. C'est pas comme ça que nous devons être traités, nous ne méritons pas ça. Et pourtant, cette pauvre population que je l'ai dit dans ma vidéo, qui a construit les écoles, qui a construit les dispensaires, les postes de télécommunication et même donné de l'eau à boire à nos pauvres populations. De grâce, nous méritons autre traitement qui n'est pas ça. Deuxièmement, C'est cette même diaspora qui a agi en premier lieu. Nos sapeurs-pompiers, c'était la jeunesse de Jawara. Bravo à la jeunesse de Jawara. Quoi qu'on quoi, c'est les sapeurs-pompiers de Jawara et continue d'assurer. Aujourd'hui, ce matin seulement, ils étaient à la place pour installer les tentes pour les déloger. Et même ça, vraiment, nous méritons notre traitement. Bakel ne pas ça. Si je vous dis qu'il y a des gosses, s'ils ont une famille la couleur du goudron, c'est à travers la télé, vous ne me croirez pas. e pourtant, la population de ce département est au bord du fleuve, pathologie. On dit qu'il est venu en politique. Moi, je n'ai rien, lien politique avec lui. On n'a pas de lien politique, c'est des liens amicaux. Il faut que les gens... qui, nous a donné ça Personne. Et, lui. En tout cas, même si c'est venu, nous, on l'a pas vu. Et voilà la preuve. Vraiment, nous remercions euh, Sam Sakatou, euh, le président Bougan. Nous souhaitons vraiment une endurance pour pouvoir tenir parce qu'il y a des trucs, quand il s'agit de l'injustice, on n'a plus rien à dire. Ça, de l'injustice. Mais le contexte, il vient, il ne peut On comprend kilifa gee fi nekk mais au moins dire président, tu ne peux pas céder, on te met à la sortie du président. Et il l'a toujours fait depuis Macky Sall. Qui a répondu Macky l'a ignoré. Bravo, ça, ça, il faut être un vrai <laughs> parce que ça n'arrange pas. Mais Bakel est réveillé, Bakel ne va plus accepter cette injustice. On ne va jamais accepter cette mhm. injustice et c'est fini. parle en wolof. wolof bi may wax nag euh, man la Waly Traoré nekkoon naa vice président conseil départemental euh, bu Bakel donc euh, tey nekkuma fenn parce que ndax lan dañoo ruus. te man dama ruus naa jàkkaarloo population Bakel di naan dama leen di campagnal pour ñu woteel di wot ma arrêté lépp 2019 ba léegi. ci presse arrêté yoo xamante ni bëgguma cee dugg parce que am na lu ma bañ grand bi taxaw ne xam na ma bu ma waxee lu dul dëgg rek ne du dëgg li ma lii par exemple euh, Bougane nag amitié moo ñu lii maa ngi jokk ak moom di ma xelal ma koy xelal kese mais politiquement on a même n'a même pas de représentant à Diawara dam pour dire que il s'il faisait de la politique bu doon def politique lii du kon kan moo ko représenté Diawara wala <laughs> man nekk naa foo xam ne la relation la mu mu ne am na lu ma am de lu ma yéene waa Jawara loo si xalaat ma ne ko bu ñëwee président jox leen ko c'est ce dont on a besoin parce qu'on est là-bas là-bas on n'est pas assisté kenn kenn jàppale yoon jeunesse Jawara gàcce ngaalaama merci je le dis haut et fort jeunesse Jawara gàcce ngaalaama def ngeen lépp merci waa diaspora def nañ lépp ñu ngi def comme ni ñu ko daan defee ñoom ñun ñoo tabax suñuy école tabax suñuy dispensaire may ndox sax jawara station de ndox ba fa nekk. population bee ko def poste sax ñoo ko defar. donc tey tey tey sax lii waa diaspora yi yónnee sinistré man mii wax ak yéen sama kër dugg na dama génn benn bonne volonté moo moo dugal këram. et mag ñu bëree bëree bëri ñu ngi fa plus d'une trentaine de maisons délogées donc nañ waxante dëgg kii dimbali kii naan nga yàlla nee na kaay dugal jànn nga ne ko du bi ñu tabaxal jànn kan moo ko fekkee kan moo ci def benn brique donc nañ ñu bàyyi ngir yàlla ab yonent ñun dañ toll si diggante boo xamante ni ndimbal lañ soxla soxla wu soxlawuñu leneen et pourtant mes autres relations su sont manifestées depuis la mu ne ma moo nga on est à pied d'œuvre dinañ leen jéem a jàppale ma ne ko loo leen ànd rek ñu jox ko gars yi parce que ils sont dañ dañ ko soxla dañ ko soxla dañ ko soxla dañ ko soxla jàpp bi daal donc da nga koy ñaawlu ah mais jàpp bi dama koy ñaawlu man de dafa ma ko ñaawloo mënoon nañ ne ah mënoo dugg kilifa gaa ngi fi loolu ñëpp xam nañu loi la mais bu passé comme que dimbal la yor bu ngeen mënul lool tamit ngeen jël dimbal bi yóbbul ko borom seen yi borom mais mënuñoo mënoo mënuñu arrêté Bougane arrêté du cortège bi arrêté li nga xamante ni moom la ñu yenn ñi nga xamante soxla nañ ko am su benn xarit loolu laa ko doon ma ne sa jabar bi tilim ne de ñu nu kuk non c'est-à-dire y a des soo xam leen koo xam te dundoo leen ko dund ko rek moo leen mën a euh, taxaw donc man la may lancé appel mooy lancé jeunesse de Bakel mm-hmm. à la population de Bakel mm-hmm. réveillez-vous demain matin on va réveiller réveillez-vous on va allumer la du ñu yàq du ñu saaga comme ni ko ñenn ñi di defee mais jaru ko jaru ko dëgg bi ñëw na parce que ñun dañu yaakaaroon ni nit ñi dañuy organiser téléthon pour les quatre régions touchées dañuy organiser téléthon naan waa Bakel ñu andi leen ko mais condition yi non non. mais état bi wax na ne daf leen ci huit milliards jàppale leen ci kii bi yéen lu ngeen ci tente yi am na wala. tente yi de gis naa leen dégg naa ceeb am na ban ceeb est-ce que ceeb lañ soxla wax naa ko sama benn vidéo ñun waa fii Bakel xiifuñu raflé wuñu. très laaj leen fonctionnaire yi fi mas a ñëw ñëpp. xam nañu Bakel Bakel xiiful Bakel raflé wuñu parce que ñàkkul fu mu jëm mu yàlla la mënuñu si dara waxuñu leen nag ñu téye ndox mi mënuñu ko mais nañ leen gis ànd ak ñun merci comme ñi ko ñenn ñi defee voilà comme ñenn gouverneur yi ñu leen doon wax ah, ñi de dañuy politiser lépp politiser wuñu ko de parce que ñoom dañuy ñëw teew fekk ak gars yi teg mbana yi ñu ànd ak ñoom mbana yi gars yi di lekk ñoom la ñu lekkee cette assistance la lañu soxla ñun soxlawuñu lekk xiifuñu mar ñu rafle ko mais xiifal na ñi ñenn ñi boo demee côté Baalu Arundu mais ñooñu on n'a même pas envie de les attendre non ça chauffe. ça chauffe ça chauffe là-bas côté de Baalu gars yi nañ ñu taxawu ngir yàlla ñun li ñuy laaj assistance ndox maa ngi nii nëb na laar bi commencé nañ génne kenn dugg ci ndox mi mi ngi xeeñ xunnu lii rek moo ko mën a faj anti désinfectant. bu jógee ci euh, coalition euh, ah ñoom kay sàmm sa kàddu kay kooku amul lu ma leen di fay amul lu ma leen di wax mënoon nañ nekk xamuñu ko kii nekkul suñu parti ñëw andil ma ndimbal kay lu ma leen di wax xanaa ñaanal leen ni yàlla defal leen li ñu bëgg. yéen xam li ngeen bëgg ci àdduna yal na leen ko yàlla defal. yal na leen yàlla sàmm. parce que li ngeen def ni bu doon politique la man du ma taxaw ak yéen di wax. danaa ko defee autrement mais alhamdulilah rabbil alamin quitte ma conscience tranquille kenn mënu maa reproché ni voici la carte de Sàmm Sa Kàddu merci donc voilà li ma leen euh, wax ngeen baal ma nag vraiment